man andara mu'siran ku dimbale ku ñàkk muñal ko gis nga waa ji dafa néew doole ñàkk yoreel la bor nga mun koo fayi ko mu ñëw ne la dimbale ma ba jamono soppiku nga dimbale ko saa boo ko gisee xam ni mun nga koo fayiku nga dimbale ko moo tax saxaaba yi am na ñoo xam ne dañ doon leble te duñu fayiku te duñ la sonal xam nga lu tax mooy tuyaabay leble moo ëpp doole tuyaaba saraxe nit ki nga lebal bis bu nekk dañu lay defal tuyaaba bu toll ak li nga ko lebal waaye sarax bi jamono bi nga ko joxee tuyaaba boobu fa la jeex na moo tax dañuy préférer lebal la saa boo ñëwee bëgg fay ñu ne noo demal ba nga amaat demal ba nga amaat parce que xam na ne li mu ci am ci tuyaaba xamul nu mu toll waaye jamono ji cëy boo yoreeloon nit benn dix mille francs bo defut ndànk ñu àtte leen ca jàkka ja ñu àtte leen ca koñ ba dana la wër wa kërëm yekko ay jabaram yekko ay domam yekko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith abu hurayra ne man anzara musiran aw wad'ala adallahu allah yawma la dhilla illa dhillu yàlla neena ku muñul ku néew doole wala nga fayal bor ku néew doole yàlla kepparal la allahu akbar keppar lan la lay keppaarale nit ñëw nekk ci jafe-jafe lu yaas nga fayal ko allahu nit ñëw nekk ci jafe-jafe takk soxna nga defal ko nit nekk ci jafe-jafe ñu nar koo yóbbu polis nga defal ko xoola kii ni nga ko xettalee kanam gi ni mu kontaanee nu ko raw la yàllay kontaanee yow mi qiyaam yàlla dina la da nga doon jaay baax maa la gën a baax kaay nga ñëw mu ne fii ñëpp a tiit nga ne ah mu ne yaa dimbale woon diw ca lu yaa sàmm yaa ko fayaloon yaa ko nangam toogal fii ci sama keppaar waaw ñaata ñoo ko mën moo tax bu la nit yoreel ba nga toroxal ko allahumma lu dul ku la yoreel te bañ laa fay islaamit buggul nag nga def lu mel noonu bu ci boole ñàkk fayda saxaaba yi am na ñu xeex ci jàkka ci jàkka yonent baa ngi taxaw kenn ci saxaaba yi ci waa ansaar ñëw poñe moroomam ne ko doo buuse te fayoo waa ji nag ko dimbali ma mu ne ko danga may fay yonente bi sallallahu alayhi wa ñëw ñu ngi poñante de yonente bi ne ki poñe dindil poñe bi waa ji dindi poñe bi mu ne lan la kii mu lebal ne ko yonent bi mu ne mu ne ko wallaahi man maa ko yoreel man maa ko yoreel waaye dama amagut ñaan naa ko ay yoon yonent bi sallallahu alayhi ne ko may ko muñal ko yow it defal effort ci nga fay kon bu kenn dagalul xeex ci jàkka pour bor am na triant yoo xam ne lépp rek la ñu mën du ñu fay ñooñu bu la neexee xeexal ak ñoom fu la toll lañu la fay wala dootoo leen xam nga liy danger ci bor olof nee na bor du am rakk ñu bëri dañoo foog ni bor du am rakk mooy boo lebee boo ñëwaatee duñ la lebal déedéet xanaa xamoo koo leb dootoo ko lebaat wax naa ko sam benn waaye mu ne ma diw daf maa yore ma ne ko noppalu nga dëpp boobu rek a waa waaw boobu léegi da ñëwaatu ma ko nu muy ñëwee du ñëwaat kon le problème ki am jafe-jafe ba leb na am ngorug dem fay donte day fay ba pare toog ñàkk mais am na ñoo xam ne fay la ñu mënul ci seeni xol nañu xeex ak lu mel noonu mbokk yi beneen bi am na zikr yoo xamante ne ñaan la pour ku amee bor soo amee bor bu la jaaxal allahuma la sahla illa ma jaaltahu sahla wa anta tajaalu lxadana ida chita sahla ali ibn abi talib ku ñàkkoon la ñëw ci yonante bi ne ko yonante man dama am bor bu ma jaaxal ba léegi mënu ma koo fay yonent bi jox ko allahumma la saxla nee na mu def ko defaat ko dem fay borom waaw am na beneen zikr boo xamante ni xaw naa gudd allahumma inni audu bika min alhammi walhazan wa audu bika min alajazi walkasal wa audu bika min aljubni walbuxl wa audu bika min galabati dayni wa qahri rijal bor boo yore lu mu toll booy def zikr bi yàlla jox la nga fay mu des nag ndax bi la yàlla joxe fay nga wala fayoo am na ñoo xam dañ koy zikri yàlla jox leen ñu bokk ak moom kooku ñoo xam mais yàlla jox na leen mais képp ku yoreel nit te war a fay gis nga yoreel nit bor li tax wóorul sa bakkan xamoo kañ la fooyee bor wóorul xamoo kañ la la dee di bett su la dee bettee nga amee nit bor munoo dugg àjjana dañ lay taxawal ci bunt bi ba nga fay wala say mbokk fay waa say mbokk yi ñu yëg lañuy fay yi ñu yëgut nuñ koy fayee loolu moo tax ñu bëgg bor ñu koy bind boo ñëwee di leb nit nga jox ko bigga fooy ne ko bindal dat bi yow miy leb yaay bind fal yuktub wal yumli lilladi alayhi xaq beneen bi bokk na ci koo xam ni dafa amee bor nga fayal ko tuyaaba bu rëy la soo ko mënee xadis bi Tirmisi ak solo